li fi dajale tey mooy euh, am ay mettit yu ñu yoo xam ne dañ koo yëg sunu yaram ak si réew mi ñu taxaw di ko mettit lu tey moo loolu nag mu ngi mel ni euh, ñun ñu dañuy yëngatu si case des yi petits yi depuis 2003 nañ si nekk di yëngatu ba vingt 2023 yàlla dogal yëngatu boobu ñuy def suba ak ngoon bëcc bëccëg ñu ngi si euh, li gën a yéeme si mbir mi mooy Euh, ba ñuy doog a sos case des tout petits yi euh, dañoo woo euh, ñi nga xam ne ñoo jàng tubaab ñu nekk fa affaire bi doxul ñu ne leen ñii dañ leen di woow pour yàqal leen jàngum araab tëgg ak fecc rek moo leen fi indi ñu ne kon nañu jël maître d'arabe yi ñi maître d'arabe yi ñu jël ay imam nañ ay responsable nañ ay kilifa diine nañ ñu jël leen indi leen si case des tout petits ñu nekk fa di jàngale di leen jàppale di leen jàngal seen diine di leen orienté si orientation boo boo xamante ne yàlla gërëm na ko mais àddina bi yëpp gërëm nañ ko si orientation boobu nag ñun na toon nekkoon doon ko def ah si nañu gisee ne ñun ñu ngi dem année bu jot ñuy dem di dem di dem di dem ba 2023 ah bénévole yi nga xam ne ñoom ñoo bàyyi woon lépp laxasaayu ne dañuy jàppale réew mi te yàlla tax seen ñaq seen lépp réew mee ko moom ñooñu kenn mësu leen a recruter ñuy gis ne dañuy jël ñeneen di leen recruter si yeneen i anam Yo, xamante ne sax méngoowul ak sart yi nga xam ne moom la ñuy recruter ah, ñi nga xam ne dañuy jàngale ci case des tout-petits loolu nag moo nekk suñu métit ah, ah, ñu taxaw publiquement diko ko jooytu ki nga xam ne mooy président de la république monsieur Macky Sall nga xam ne moom lu ne nit mën ko ko waxal ma mu des ak mbaax ak lu mu yëgul loolu boo ko ko dina xam dinañ xam ne yëgu ko mais lu mu yëg dina si xar tànk tubayam loolu nag moo tax ñu wax monsieur le président ñu ngi lay jooytu lii ñii ah wax dëgg 23 ans d'expérience. Ken kenn mësu jël ñu nek ay bénévole di yëkk di di di suba ngone ngoon ak bëcëk ñu nek ci xalé tout tanki. yi te yonent bi dafa wax ne yow ak ki nga xamné ne yar ay xalé nii ngeen di nekké bir aljana kon ñun buñu nekké di sonu ci xalé yi te yonent bi waxaat ne képp ku jangal ab ab ab xarab ab xalé ben lettre koku sangam nga kon loolu motax ñu taxaw fi diko joytu euh, monsieur le président mais diko joytu tamit Euh, la directrice madame si Sissoko nga xam ne woowoon nañu fi ah ñu toog di ko déglu mais ba léegi dara xewul ñun nag ah, gis nañ ne recrutement yi passé mille trente et un animatrice ah, ak animateur nañ jël fan nañ leen jëlee mais jëlee wuñ leen si biir dëkk bi ñu ngi leen jëlee si yeneen ñooñu ñuy jël noonu tey mille mille trente et yooyu am na si ñoo xam ne ñun ñoo leen jàngal mais nooy jàngalee nit nit ko dem ba tom am am BFEM wala mu am bac ñu indiwaat ko mu def euh, deful sax diplôme professionnel ñu indiwaat ko si biir case des tout mu yilifaat kooku ko jàngal loolu xam nga injustice foofu la tàmbale loolu nag moo tax may wax ne ah nañu nañu nañu bàyyi xel nañu bàyyi xel ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne mooy borom xam-xam yi ab réew nag boo buggee mu dox da ngay fonk borom xam-xam yi ma boo ab réew boo buggee mu xam mu dox da ngay fonk ñi nga xam ne euh, lu fi xew si àddina bi rek ñoom la ah ndax ñooy làmp réew mi ñoo koy leeral ñooy def lépp ñun nag li ma sentir si euh, talee ko si madame la directrice mu ne madame Maimouna sa euh, Maimouna Sissoko li ma sentir mooy ñoom ay limon nañ ñu def dañ ñuy nal ba ñu set wicc ñu sànni ñu loolu du yoon du baaxul guddi baaxul bëccëg loolu laa doon am loo xam doon naa ko wax di ko métitlu di ko métitlu àddina bi yëpp wante di ko wax monsieur le président mu bàyyi si xel. waa waa plan A bi mooy lii mooy plan A bi mais plan B bi duñ ko wax kenn. mais plan A bi mooy lii suñ si euh, suñ ko doxee nag une semaine gisuñu si lenn loo xamante ne saafarawu na dinañ jël plan B te bu boobaa mooy gën a metti bi